sëriñ bi mu ne dañu doon wax ne gan su ñëwee na wax la ko indi suy lu nag mu dal di tàggatoo nag sëriñ bi mu ne fa fa la nu nag sëriñ bi mu ne nanu ko waxee woon daal noonu la rek sëriñ bi mu ne danoo ñëwoon siyaare sëriñ bi gis ko ci sunuy bëti jëmm suñu jëmm nekk ci biir këram ñu jàpp ne ñun daal mën nañ caa yokkoo ñun sëriñ bi mu ne loolu moo nu fii nii sëriñ bi mu ne yàlla def na gis gis nañu ko waaye gis nañu itam ni sëriñ bi gisee ak sëriñ bi mu ne wax na ne bi nu agsee ba teg ko bët la ca des mooy daal mu wàññeeku woon ñibir rek sëriñ bi mu ne lu tax même soo ko indee ci hadis. même soo ko indee ci waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam. dana doon doy. dafa doon doy. ma ñëw gis ko. mu ñëw gis ko. ma ñibbi mu ñibbi. walla bo walla ba mu toog këram suma yéene si yéeneem yàlla nangul ma ko yàlla nangul ko ko mu mel ni ki far na ñëw sëriñ bi mu ne loola bokk na ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ mu ne waaye nag yéene nanu ñëw nanu gis nañ ko yendu nañ fi julli nañ fi tisbaar julli fi takkusaan sëriñ mu ne kon kay lépp man na sëriñ mu ne jotaay bi nag moom day jataay bi wax na boppam. niñ toll nii. niñ toll nii. nekk ay jullit. nekk ay jullit. bokk. bokk. ci su mu bokk. bokk ca fa mu bokk. ñun ñëpp. ñun ñëpp. ñu ñëw jàkkaarloo ak. ñu ñëw jàkkaarloo ak sëriñ bi. dara indiwul. dara indiwul. lu dul siyaar. lu mooy siyaar. te yàlla tax. te yàlla tax. lisaanul xaal rek. lisaanu xaal bi mooy melokaan bi nii rek. wane na ne. wane na ne. sunuy aajo fajoon la sunuy aajo sëriñ bi mu ne loolu kay wa na ko nag ndax ñun ñëpp sunu xol a ngi sedd sunu xol a ngay sedd ñu ngi jàkkaarleeg sëriñ bi ah waaye sëriñ bi mu ne loolu sant yàlla la di sëriñ bi mu ne kon nag sëriñ njaboot gaa ngi nii tey nag tey nag ñooy ñaan lu de ñun ñooy ñaan lu de tey daal ñun ñooy ñaan lu nag kon nag nga boole ñu ñaan ñaanalu ñu dal di wàññeeku tey Mbacke sëriñ bi dana fi bàyyi bi nee na waxtaan lépp lu muy baax baax bàyyi fi dara te wax nga ko léegi ni ko Abdou Karim nee na sëriñ bi ah wax ji day li muy nga li nga waaye fexeel ba ruusalal ñu fi sëriñ bi ñu ne nga ruus sëriñ bi kon ruusal garab gi dafa meññ ñor na te dafa war a rot jaam yi jëriñoo ko sëriñ bi mu ne loolu waxoon na ko ci néeg ba bi ko waxoon bi nga waxee li nga wax ba pare na nga fi ba dara sëriñ bi mu ne ah am naa ci yéene de waaye moom sëriñ bi wóor na ko ne moom ak ñi mu àndal ñun moom danañ yóbbuwaat. jërëjëf Mbacke li ñuy yóbbaay nag li ci njëkk. mooy dañoo xam ne danga fi bàyyi dara. dëgg nee na li mu ko wax ne ko ñi fi nekk ñëpp bég nañ ci ñëw gi. dañoo xam dañ fi bàyyi dara. wallaahi sëriñ bi ma ne kan naaw lammeñu sëriñ Abdou Karim jaar na ci la. dinaa fi bàyyi dara. naka na fi bàyyi dara. kon dinaa fi bàyyi dara. sëriñ bi mu ne ci lammeñam dina fi bàyyi dara. wallaahi danga fi bàyyi dara. sëriñ bi nee na sëriñ Thierno danga fi ba dara. kon nag danga fi bàyyi dara ngir liggéey danga fi bàyyi dara. alhamdulilah. jërëjëf Mbacke nee na Thierno Abdourahmane Bari dafa yéeme. dafa yéeme. ko li yàlla def li nee na li yàlla def ci moom li tax mu def ko ci moom. ni mu mel a tax moo tax yàlla waayoo ko. yàlla waayoo ko. Bari yàlla daf ko def waay. koo def waay. ngir lim man ngir ku gis lim man ku gis lim man. gis ni mel gis ni mel. xam ne yàlla def waay. xam ne yàlla ko def waay. wallaahi yàlla xam na loolu. te li tax sunu borom def ko waay. ku ko gis rek moom dégg ay waxam dégg ay waxam xam na ni mu mel xam na ni mu mel moo tax yàlla waayoo ko jërëjëf ceeb kenn du doyal ci yow wallaahi duñ doyal ci yow xam naa ne beneen yoon booy ñëw xam naa ne beneen yoon booy ñëw danga koy def ñaari fan rek danga koy ñaari fan rek nga xam da ngay toog rek ñu yendoog yow fanaan ak yow yenduwaat ak yow xam naa ne loolu sax moom sa jot du la ko may bu baax waaye bu boobaa ndimbal rek lay doon indi ñu ngi nga yàgg fi lool te jërëjëf sëriñ bi nee na ngeen tàll seen loxo ñëpp commencé tàll seen loxo آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين اللهم آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. ba kenn nga fi yàgg ci jëpp lool bari ku la jërëjëfati